بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ربهم وأولئك jaay ci yére bi ñëpp mu dox ba ñu leen enraciné ba dafa ñu jël tool ba ba déye déye ko ni ñoom ñu xaaj ku defe nañ ñu day fay ñu ne duñu fay accident ñoom ñoo ko def waaye ñu xam nañu ko def waaye tool boobu bi ñu defar ci sëriñ yi jaay bi ñoom ñoo fekk séddoo te ñu doon naan ñaan jaay na ñaan ñooñu. dafa nekk ne génn kii lii nekkul ne def kooku ñu leen ñaanal leen. yàlla ñu ci ko bu baax nag. ma ne ko Omar bi ñaanalal ko bu baax. fi ñoom ñi fi ñëwoon ni ñoom lañ fi dese ñun daal seen baay bi lañu am mooy suñu kilifa boo leen ñu xamee bon xam nga yow bu ma ñëwee kër ga fekk naa la man moom laa am mooy sama lépp. الحمد لله الحمد لله خلينا وما ما فعلت نفسكم ما عندنا موسي بايسين نفسكم كوسي <laughs> كيش بورتال بايسين نفسكم كم <laughs> بعد يقول ده ما نقول ده بورتال نفسكم ده نعم نعم ما بيجي بايسين يعني نعم نعم أمريكا ما كسرنا لا أرمي أبدا كي يرنا كتران سانكا le premier يا vient en 80 la allatérité enseignant la ne woon bi ma allatéré nag le le dix août quatre-vingt-six la ñu jox jàkka ji mooy def ko ba bi waate rek xam nga nit ñi dañoo jaay nit ñi naan déedéet man ñun gisuñu loolu doo gis mu benn waa Njaañ yi ñu naan kii yi yàlla alim alim sama moom Serigne Njaañ bi jur sama bàyyi tafsir la bi mu duggee bi mu gaañoo mag yi yoo xam ne kon dugg si armeel bi bi mu jullee ba defe moo ko nangu suuf ab armeel la sa école bi boo demee si miir miir bi mu yem boo fa gisee xeere tew moom armeel تو مام تمسير ندوي مام تمسير ندوي مام ديك ندوي مام تم أفسر القرآن لو كان يمنون يوم مرة تلك بي يو خمي كوسي كذاك الحمد لله رب العالمين بنا بني بس من لم يتيل تي كي وانا كان لم لم يتعشوا بمنا جنوا ده كيف يفوت بشر يسيب القرآن ما لم يتيل تي من قال bi nga xam ne nag ci mois février bi passé la ma lii def tànka yi dafa tànka fan ñaar bu ko laa def ñetti fan ñu nekk ma jënd kaan ñetti fan. ñu def ci ñu def ci dafa tàng ñetti fan ñu àgg suñu